gisee nous mais li dafa gëna am solo parce que xam ni jigéen ni bëgg nañ wër gi yaram mais xeyna parfois doole yi ko mën parce que comme li nga wax légui amuñu unité de dépistage cancer du col il faut nga dem ci yenen fenen fay donc buñ ko défé gratuitement nit ñi ñëw je pense que lolu quand même c'est une contribution à la lutte contre la mortalité maternelle bi nga xam ni c'est un défi à relever parce que ñëpp xam ni cancer mom ñëpp xam ni c'est mortel malade te ku aussi le traitement est très coûteux donc loolu moo tax ñu pré en tout cas préféré def dépistage cancer du col. waaw xam nga jigéen ñëpp a xam ni jigéen bu mënee rek kër gi dafay yokk préfet ngeen baal ma parce que góor gi ñoom li ñu am rek la ñuy joxe mais jigéen bi mooy dem toujours defar ba mu baax mais bu dee jigéen bi dafa mën nag day gën a neex.